ba tey ci seen scandale du jour ñu déglu ji vidéo bi ñu ñëwaat. maa leen di nuyu ah fan yii sax dama ne woon dama arrêté tuuti vidéo concentré wu ci benn liggéey bu ma war waaye nag bu fekkee da nga nekk ak ñoo xam ne ay fankat lañ ak manipulation da ngay génn leeral comme ni ko Bah di waxee rek suñ génnee midi midi cinq génnal leeral parce que dañoo mën a fen dama gis photo bi ñu koy partagé waat fan yëpp di ko génne à sama sorti yi man làqatu man yàgg naa taxaw fi ñu ne leen membre fondateur Pastef la te maa leen gën a xam Sonko Sonko ba ma koy xam léegi ëpp na 15 ans boobu mi ngi DGID boobu Macky Sall sax dàqagu ko photo bi biir këram la woon saalam ci sa kër góor gi fin 2017 début 2018 te am na yeneen photo dinaa ci ñëw yoo xam ne maag moo ñoo ànd di waxtaan kon donc mooy li ma leen wax rek gis nga mënu fen booyu Pastef yi ak waa Pastef seen mënu fen seen leader lañ ko doonee Ousmane Sonko kuy fen mooy dàq fen mën na fen mën na jëw Ousmane Sonko toog ñu toog yëpp day jëw jour bi ñu ngi toog muy jëw Mamadou Gueye la doon jëw Mamadou Gueye mooy le maire de Djiddah Thiaroye Kaw la le nouveau directeur des moom la doon jëw Ousmane toogaat nañ yeneen toog nañ fële ci résidence Mamoun man ak moom ñuy waxtaan muy jëw Amadou Ba Ousmane Sonko toog nañ fële ca toolam ba nekk si bu xutaan muy jëw ñoom Pape Omar Diallo xoolal. ku mu àndaloon wala taxalikoo jëw jëw rek la mën ak fen Amadou Ba mii mii tey mu doon saaga keroog ne ko yow Amadou Ba da ngaa Amadou Ba mooy l'actuel premier ministre da nga yow heure bi kaso la fekk parce yow sàcc nga xanaa moom receleur la Ousmane Sonko toog nañ ca résidence Mamoun fekk Amadou Ba mi nga xam ne moom lay attaqué sonal ko lool naan ko Amadou Ba nga moom xanaa receleur la Amadou Ba moom man toog naa ak moom résidence Mamoun moom Sonko mun ne ma Alioune Amadou Ba defal na ma teraanga bu ne mu ne ma Amadou Ba.

ah ci son Sonko lañ ko jëlé fen ak manipulation fen katch rek mo doon jël photo diko partager partagé mën naa leen génneel yenen ana photo boo xam ne maa ñoo di dox di waxtan lu yag, amna na photo boo xam ne maa ngi moom ba amna bo boo résidence mamoul la ana nañ fi ci edeka tok di waxtan mu déposer ba sama kër pour xam waaj c'est quoi tax mënuma yag ak mom da lay comme ñu ni boy booy di leen saagaloo man yoy la bëggon def lo te mënuma def lo amoon na ay jamono xawoon naa jéem a réussir tuuti ma am ñu may attaqué mais damaa rëcc dama ko rëccuwaat parce que kii jaru ko fenkat la jëwkat la man li gën a bon ci jëw mooy nga toog ak sa morom góor di jëw say moroom góor Ousmane Sonko noonu la mel jikko jigéen la yor wallaahi jigéen la yor fen rek la mën léegi nag comme que loolu la da ngeen di génn léegi fu ngeen génnee midi midi cinq dinaa génn ah leeral seeni fen bàyyi maandu maandu laa woote yéen a bokk kër yéen a bokk kër Yena bokku bokk kër yéen a kër muñal muñal yena bokku kër mu yoon ci man mandu rek lan pastif mandu leen sal sa lave en famille tubaab loolu la wax waxtan len bu jubo yalla man balde ma waxantewu la ken dara waa suwaa pastif merci rek merci tout va bien tout va très bien voilà kay nii la yàlla dogal.